dañoo constaté que dafa mel ni li ñu doon gis avant temps Senghor temps Abdou Diouf ñu naan euh, nation euh, club nation développement maanaam ñoom euh, kii ñoom Babacar Sine ak ñeneen ak ñeneen damay débat gauche bi ay questions yoo xamante ne fondamental ñu koy posé ci débat bi ñëpp ñu si bokk di ci waxtaan ba xam réew mi yenn saa ku nekk xam fu ngay xalaatee waaye ñu préserver li na ne mooy Sénégal wala ñu constaté depuis 2000 ñu wax ko bi Abdoulaye Wade jëlee réew ba léegi débat amatu ci réew dafa mel ni xiiroo ngaayoo fépp ci réew mi xëccoo gauche xaalis gauche gauche droite loolu rek la nit toppatoo pour yow en tant qu'historienne te nekk témoin de la histoire politique du Sénégal récente noo ko jàngate jërëjëf alasaan ginnaaw bu ma la nuyoo nuyu say téléspectateur ak say auditeurs yépp maa ngi lay gërëm ci li nga ma woo tey pour ñu waxtaane lii boo gisee ñu jóg man ak ñi ma àndal kii di sa nattangoo di sa mag Abdoulaye Bamba Diallo ci la bokk ñëpp xam nañ ko créé na fi Cafard Libéré créé na fi Nouvel Horizon def na fi benn loo xam ne nii pour man dama koy regretter toujours ñu koy wax les Sédar parce que ñu bëri dama leen doon xam ci Sédar yooyu keneen ki ci des mooy Ousmane seen directeur WARC ñëpp xam nañu Ousmane Sène générosité ak bëgg réew mi mm-hmm. ak bëgg lu baax moom mooy ki nga xam ni moom moo ñu moo ubbi Warka pour ñu mën fa ñëw def li ñuy def ñun ñëpp dañu àndandoo rek di xarlu li xew Sénégal ñu ne comme lii ñun ñëpp ko gisandoo waaw du ñuy toog rek di xoolee duñ def dara nan leen jóg ndax Sénégal dafa soppeeku soppeeku bu doy waar amatul borom xalaat amatul boroom xam-xam amatul moonte hmm. Sénégal de buñ koy tudd xam-xam a tax ay boroom xam-xam a tax ay ñoo xam ne nii seeni xalaat moo doon waxuma yóbbaale Sénégal waaye yóbbaale Afrique yóbbaale diaspora bi yépp ci la bokk hmm. bu leen doon xool dëpp Alioune Diop bu ñu naan intellectuel moo njëkk dajale intellectuel waxuma Sénégal mais Afrique Mm-hmm. te loolu moo li nga xam ne moo indi indépendance ci Sénégal indi ko ci Afrique. te fan yii rek fan yii rek dana ko anniversaire création présence africaine. absolument am na juróom-ñaar fukki at. ak ñoom Césaire ak ñoom Césaire ñëpp. Senghor Senghor Sénégal bu amee bayre bi mu am ci àddina bi mën naa ni loolu moo tax Senghor ñëpp xam nañ ni moom boo ci génnee xam-xam ak xalaat dara desatul ci Senghor. Mm. ñoom Cheikh Anta tey koo dégg mi ngi naan Cheikh Anta Cheikh mais balaa loolu amoon nañ fi ab lay li ci wàllu xalaat mbirum politique. Mm. kenn kenn livre Ablaye Ly yi mooy ki nga xam ne tey mën naa ni ñoom Amadou Makhtar Mbow ak ñoom ñëpp si kuréel googu lañu ñu bokkoon te ñooñu tey boo leen dee seet koo ci gis tey amul alal waaye li mu am mooy xam-xamam ak yaram ak na mu yaree njabootam ak ni mu nekkee modèle parce am. ay nit ñu am ay jomb-jomb lañu. Mm. léegi nag Sénégal dafa dem ba nga xam ni kenn xàmmeetul réew mi naam Ablaye Wade bi muy ñëw ab Ablaye Wade man toujours ci li may wax ne dama ko ko meree mooy ku mënoon a restaurer loolu la parce que si génération bi boobu la bokk te Ablaye Wade ñëpp xam nañ ni yàlla may na ko xam-xam effectivement ànd na ak euh, Union africaine def fi conférence su. intellectuel yi waaye Ablaye Wade li ko nit ñi doon reprocher surtout ñun ñi àndoon ak moom mooy dafa jël sénégalais yi téye leen ci li nga xam ni moo yées ci suñuy jikko parce que moom moom xam-xamam boobu mu mënoon jariñ Sénégal jariñ Afrique soppi lu bari daf ko teg fële waaye li nga xam ni boo waxee seet mu ne la sénégalais bu ne am na njëkk déet du sénégalais yëpp am njëkk soo waxee. mu ne la sama sama sama euh, euh, chauffeur wala sama xaj sax mën naa ko jël name ko ci poste bu ma neex de ce fait à partir de là la am wëlbatiku yoo xam ne Sénégal pour ñu jubbanti ko dafa yomb léegi nag li am solo mooy nañu delloo si xam-xam ndax kenn mënul defar àddina defar réew te faboo boo xam-xam teg ko dafa am ñoo xam ne damay liir temps yi seeni mbir yéemu trop ci yàlla ku ci mel ni Gandhi wala nga jël ku mel ni tel Nelson Mandela saa yoo xalaatee ci moom rek da ngay gisaat lu bees ñooñu dañu nekkoon su sacrifice dañ ko am ma kii Gandhi dem na ba renoncer ci vie de famille uniquement pour mën a jël ni muy doxalee ak xam-xamam may ko doomu aadama yi may ko askanam may ko jàmmu àddina léegi nag nit ñooñ ñëpp dañ def ay sacrifice Sénégal boo ñëwee dañ fi fekk nit ñoo xam dañ def sacrifice ngir Sénégal Sénégal ni muy doxee Alassane bu ñu continuer nii des na tuuti jàmm dootu fi am gis nga démb damay déglu ci benn wala damay liir ci ci ci site yi menn mbir ñu ne ñu dëkk Koppe dañu dem ba nga xam ne mënatuñoo dékku lii leen wër ñu jóg xam nga bi ñuy am indépendance ñun 3 millions d'habitants la ñu woon tey dem nañu ba nekk fukki millions ak juróom-ñaar buñ fi toogee ñaata at dañuy romb ñaar fukki millions yi nit di dem te Sénégal taaweekuwul. Hmm. ni mu toll woon rek la toll. moo tax problème mu suuf bari ci réew mi tey alasaan yow sa communauté yow yow loo gëm sa waaso sa tariixa sa diine keneen ki ci des kontewul tey jii boo toogee ndakaaru des na tuuti nit ñi dañ koy daw kenn dootu fi mën a dëkk parce que réew mi dëkk dëkk bi neexatul a dëkk mm-hmm. gis nañ ko oto yi bari na fu waay neex gaare lu waay neex def tey nit boo amee malade di ko génne sa kër sax mënatoo ko fa génne ndax doo am foo ko awale ordre ak discipline discipline amatul mm. parce que tey ban bu fekkente ni man ñaari nit ñetti nit ma woo leen jël samay haut-parleur yóbbu ko ba ca kaw du ma seet ndax kii intéressé na ko du ma seet ndax kii feebar na li ma neex rek laay def sama yoon ci keneen day yëkkati tabaxam mm. ba mu jot ca kaw dëkkandoom bi mu dëkkal du ko avertir du ko wax waaye la muy tabax danay yàqal dëkkandoo bi loo xam ne nii moom sax yëgul ni yàqal na mais est-ce que ah, léegi nag mais nag c'est que problème yi à mm. dafa dépassé léegi état ah. état am na loo xam cëru état la waaye consensus yi nga xam ne ñun ci la ñu war a dund consensus yi nga xam ne ñun ci la ñu war a dund et puis xam sunu wareef ak li ñu war loolu dëgg la état wu am na ci cër parce que état itam bu bàyyee ko bàyyi lu neex waaye def état am na ci cër waaye ñun doomu aadama yi dañu war a tëggaat sunu xel tëggaat sunu bopp aha gis nga léegi lii buñ ci jogul ñun nag man nag ñi may ñi may wax mooy ñi jàng hmm. ñi am xam-xam ñi yàlla may te nag ñu bañ a naafiq parce que naa fekk weesootul nga fab sa xam-xam lal ko toog ci di wax nit ñi lu leen neex mm. di jëf nit ñi lu leen neex mm. di leen ni yéen a nekk ci dëgg mm. waaw am na loo xam ne gis nga tey Sénégal am na loo xam ne def nañ ko de réewu Afrique yu bëri defuñu ko mooy alternance mm-hmm. def nañu alternance benn yoon 2000 def nañu alternance ñaari yoon 2012 waaye ndax problème mu société bi réglé wu na dëgg-dëgg loolu dafa nekk loo xam ne nii tëggaat xel yi tëggaat doomu aadama yi loolu moo ñu ci mën a jël kon da nga yi nekk ci kër yi nañu génn kër yi toog wax ak réew mi mouvement intellectuel bu am doole moo mën a soppi Sénégal du alternance mooy soppi Sénégal hmm. du moom rek a koy soppi ci la waaye dañu gis tey toujours damay wax naan Codesria nañu def tey bilan wu alternance yi en Afrique ñu xool alternance yi lan la indi ak jamono parti unique lan la ñu defoon ñu xool fan la nga xamante ni affaire yi fa la fa la toll ak fu weñ nga bañi ñu seet intellectuels yi nañu génn ci seen kër yi mais réew mi boroom xam-xam yi nañu génn ci seen kër yi te gis nga alsaan mm-hmm. dafa am loo xam ne nii fas yéene nañ ko def loolu pour xale yi ndaw yi pour xale yi génération parce que li ñuy def intergénérationnel la defuñu ko ngir yi mag mag ñi la ñuy boole ak xale yi xale yi jàng ñoom it wax seeni xalaat ak seeni tawat mag ñi xelal leen gis nga Sénégal bi mu sosoog léegi mm. dafa am xalaat yu mag yu ñu fi def xalaat yu mag jamono Senghor daan nañu def ay colloque d'état sur l'état lan mooy sensu état lan mooy socialisme lan mooy lii xam nga léegi li may wax ne idée kii sax dafa amatul ci réew mi maanaam xalaatu politique amatul ci réew mi. école de parti amatul amatul dara amatul. dara amatul dara. xaalis rek finalement soo ko xoolee da nga naan alternance yi de baax na waaye li mu jur tamit. loolu bu ñu ko changé wul alternance dootul tekkeeti dara dootul jariñ dara mais pourtant am nay am nay débat yu mag. waa déglul yaa ngi fi am assise nationale. yaa kenn xamul assise bu nu mu. Ah, assise yaa ngi fi homme politique yi. ñoo ko bañ a appliqué ñoo ko bañ a génne. waaye ma xamal ne la sax loolu yegguma foofu ye yëgseeguma foofu waaye am na assise am na leneen waaye colloque d'État yi man dama gis ne bi Abdou Diouf faloo intellectuel yu bëri dañ jóg ànd ak moom ñu créé Grésen. kii ca la bokkoon nu mu tudda ci euh, Iba Der jiite ko ndem si yàlla si yàlla yàlla seral ay yaxam amiin euh, Pape Ibra taal moom tamit ñoom ñëpp ñu nekk ci man dama doon dañ ma doon woo toujours may dem ci seen loolu lu ma nekkoon xale yëpp dañ ma doon boole waaye Grésen ñoom ñëpp ñu ne Abdou Diouf léegi réew mi dafa am noo xam ne nii danga nga ko koo war a tërale ñu jëkk def li ñu jëkk a def mooy euh, kii nu koy waxeeti état généraux de l'éducation xam nga ca la ab ca la Ibader sax jógee nekk mhm. ministre de l' éducation état généraux de l' éducation léegi ñu pare ci loolu ministère de la culture mu am benn problème mën naa ni kero boobu ci ba ma toogee mu ngi may dégg Joseph Mathiam ñuy toog di waxtaan mu ne ma Penda loo ci xalaat ma ne ko monsieur le ministre boobu conseiller la culture ma ne ko waa ma ni ko dañu war def une réflexion globale sur la culture. Mmh. mu ne ma lan mu ne ma de kon ñu def charte culturelle ma ne nañu bind charte culturelle ca Mathiam la commencé dem ba ca ministre ba Kader Fall ñoom ñëpp ñu def charte culturelle tey Théodore njaay moo doon ki nga xam ne moo doon rapporteur général charte culturelle boobu nit ñi sax xamuñu ne existé na. Mmh. leneen ak leneen loolu yëpp nañ ko génne. bu ñu ko kii génnee ñun dinañ ko génne def au moins séminaire pendant trois jours quatre jours boo ay xale ñu xool ndax lépp mënul bon ci loolu assise national yi la ca nekk kenn laalagu ko mais nañu xool xalaat yooyu yëpp lu mu mën a jëriñ Sénégal ak lu mu mën a indil Sénégal parce que nekkatul ne diw comme parti yi ñoom xalaatatuñu xalaat yi ñu xalaat nañ ko jël ñu approprier woo ko seet li ci jariñ Sénégal ñu def ko li ci li ci jariñ réew mi ñu def ko li ci jariñ suñu askan parce que dafa laaj ñu tëggaat xel yi tëggaat nit ñi ñu nekkaat ay nit bañ a jiital parce que itam soo xoolee tey ni ñu jiitalee alalu àddina ak xaalis. dana man li mu ñu jiitale aleenu àddina ak xaalis tabax ay immeuble tabax ay étage am suuf man boo déggee ñu ne diw dafa tegle ay suufi suuf man ku ma wax suuf dama laa ma kenn wax suuf ça ne m'intéresse parce que itam nit ki loo am am am benn kër doy la ci ngay mën a dëkk leneen ak leneen nañ leneen di nañ ko delloo ci askan wi askan wee ko moom hmm. nañ ko delloo ci askan wi waaye loolu nag tey yow boo amoon alal tey jii Alassane di ko thésauriser jëluloo ko investir ko jëluloo ko créer ay emploi jëluloo ko former ci ndaw yi. alal boobu lan lay jëriñ. du fees da ngay dee génn génn fi. doog yëpp ba bu ëllëgee ñeneen donn ko. def ci lu la neex lu la neexul. alal lu muy jëriñ. waaw